man Aïda Moussa Salim maa leen di ñaanal mbokk yi seetaan Sénégal 4 TV yàlla na yàlla defal jàmm may ñu jàmm may ñu wér may ñu réewum naataange ci barki Seydina Mouhamed. dëgg la defe naa ne Sénégal gépp seetal nañu yow yaay seetkatu seetkat yi. tamit liaison bi nga xamante ni instant bi dafa commencé di am entre politique ak lamb est ce que tamit xalaatoo ni instant bi loolu moo commencé yàq lamb bi parce que yaa ko wax léegi Balla Gaye bi mu daanee Modou Lo après dañ ko defal benn sortie jongante TFM mu wax ni dépassé naa fu may ànd ak politique say ci caravane ñu teg ci deux semaines ñu gis ko mun génn ci caravane politique kon politique am na doole boo xamante ni mi ngi manipuler lamb fi mu toll nii. waaw loolu euh, boo nooyee rek ñu yóbbu la gis nga boo nooyee bopp mhm. xamoo fooy teg sa tànk dañ lay yóbbu. gor dëgg da ngay ànd ak kenn paa ànd ak kii tey bu la neexee nga ànd ak kii isam la man demewu ma noonu gis nga fii ñaata écrit ñoo fi nekkoon am na ñoo xam ne ñoo ngi woon fii sax dem nañ école lutte Balla Gaye ñun fi ñu nekk fa la ñuy nekk ba dee suñ fa amul dara baax na yaakaaruñu làmb effectivement xam naan ba léegi damay des tamit ci wàllu làmb parce que ku seet si euh, defe naa ni champion bu toll ni yow faaw ñu waxtaan ci làmb est-ce que règlement yu bees yi nga xamante ne nii CNG teg na ko ci làmb yéen écrit yi yéen a ngi jot ci wàllu règlement yooyu parce que souvent dañ ciy am ay problème nga dégg ni mbër bi dem na stade benn problème am na ñu ni après damay defi di recours pour dem CNG pour xool lan la règlement bi wax ci loolu dafa mel ne yéen mbëri du ngeen jot ci règlement bi CNG di génne non euh, du ma wax sax mbëri xam nga mbër mënul lépp mhm. ci encarnement mbeuri lay wax ñom ñoo wara xam règlement yi suñ yobbo seen boy ne len jaar len fi jaar len fi bu boba problème du am waye du da nga yobbo rek xamoo dara ci lamb nga ñew tok ci siège is xam la wala nga taxaw fële koku mëno wax sa boy lu muy def ñom ñoy ñom ñoy tax bu ñuy dag boy yi yépp ki ñi fay 100000 francs jox la ay ticket ñu dag la fo jëm parce que man loolu dama ciy am problème souvent parce que ñun dañuy wax ni làmb mooy suñu sport national mais dafa mel ni football sax règlement football lañ gën a maîtriser que règlement làmb foofu tamit jafe-jafe am na foofu tamit da gis mbër di bëre sax ñu jox ko avertissement moom mbër bi sax xamul lu tax ñu avertir te pourtant mi ngi ci biir règlement bi waaw mbër mi da ko war a xam mbër mi da ko war a xam quoi parce que euh, bu ko xamul sax entraîneur bi war na ko wax ba mu xam ko entraîneur légui tamit tane won mbeur la xam nga lamb pour nga entraîner boy da ngay gis mbeur mo waajo xamne sax jaaru ci lamb jaaru ci dara xam lamb du dang ci amna ño xamne sax jaar nañ ci lamb sax pour ñu kërse boy sax problème lamb dang koy tarbiru isam la ñun dañ ko xam bu baax ñun dañoo judd rek ñun ba ñu doon ci capote auto lañ doon dugg sam grand frère ki ñuy wax liiru jaan mhm. ñuy dugg ci capote auto yi di dem xam ci lamb dafa bari lu ne lu ne lu maanaam làmb liñ ci xam liñ ci xamul amul lu nekk xam nañ ko ci làmb mën naa préparer mbër mbër bu ne mën naa ko préparer yóbbu ko stade mën ko préparer ci physique mën naa ko préparer ci lépp. effectivement instant bi làmb dafa nekk ci crise bu ñu fii ñu toll nii lu mu gàtt gàtt daan nga dégg huit yu mag yoo xamante ni taxaw na ren bi saison bi ubbee ba léegi ñetti affiche yu mag lañ fi amagum lan la lu xew lu problème bi lan la. waaw loolu lépp sponsor la rek. Hmm.

parce que football bi même bu fekkee ni amul sponsor té rawul gaay yi ñu nekkoon na def sport ba légui voilà euh, loolu moment ah, pour affaire yi gëna avancer ni ni ni ni état bu ci jappul pour affaire yi dox nu mu doxee woon du yomb bu ma waxé deug rek il faut que état japp ci bu baaxa baaxa baax pour affaire yi dox état bu ci jappul pour lamb dox comme nu mu doxee woon du yomb quoi motax boy booy nañu. nañu wut nañu wut métier. métier boole ko ak làmb ji. baax na ci trop trop trop. man moom man maa ngi ciy dox sax. booy man maa maa ngi ciy def li ma mën. parce que yàlla dafa dox ma ma ma ma am agence sécurité. maa ngi sant colonel Malick Cissé bu baax a baax a baax moom presque këyit yëpp moo ma ko lijjantil. presque boy presque euh amna ay élément yo xamné sax ma ngi leen envoyer jaxay lu mat presque ay 20 élément ku ci nek yaa ngi fayeeku chaque fin du mois yaa ngi am lo xamné ci dimbali say wajur yow di émission la lay su ah, nga sportif wala nga te bëgg a participer ci émission bi numéro Sénégal ci 4 TV moo affiché wu ci bas écran bi bu la mën nga ci di jël contact ñu Mm. trompeur toog bi xaar bi yàgg na de <laughs> sa fan sii danoo xaar a xaar ba ñu ngi bëgg a xaar fii tén problème bi fan la ci yow la wala ci promoteur yi wala ci adversaire yi lu xew non ci ci gars yi la nag gars yi ni nga may gisee ni yi ñemewuñu ma de lu leer laa la wax pour yow instant bi boo sampol sa ndënd gars dañ ko falal non nii nii nag ma la ma wax la lenn nii nii nii nii nii nii nii nii nii mm. ma samp sama ndënd taxaw yàlla xam na ne booy mënuñu maa daan bu ma amee temps bi préparé nu ma war a mm-hmm. yàlla xam na ne mënuñu maa daan maa la gën a ñeme entraînement isa xam la xam naa ni ñuy amee doole ba pare mën naa bëre xam naa ni ñuy préparer làmb temps bi nag moo fi du nekk waaye ma am temps préparer toog pour booy daan ma problème la ko trompeur est-ce sa tur lañ ragal. ndax dama seetaan sa benn combat suñu papa Bécaye Mbaye trompeur trompé na ko est-ce que xam nga ni trompe trompé boobu noonu moom la gars yi di sóoraale ci yow xam nga loolu. oui su Bécaye moom maa koy sant bu baax a baax a baax Bécaye maa koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax moom moom sama carrière yu ci bu avancé bu avancé ci lu bari sax Bécaye Bécaye da cee joué quoi. effectivement tur trompeur fu mu jógee. tur trompeur sama benn grand moom ko tuddee ki ñuy wax Mbaye Seck. Ah. waaw Mbaye Seck moo ma ko tuddee parce que dañ doon dem dañ doon nekk entraînement mhm. maanaam damay tuuti. mën nga am presque lu mat ay cent kilos li am la mën nga doy nu la neex bu ma la jàppee mën naa la def nu ma neex. waaw léegi mbay nag ne kii kii nag il faut que ñu tuddee ko trompeur. <laughs> loolu moom moo indi bu bi am mbay si la. Hmm. maa ngi koy nuyu di ko sant bu baax a baax a baax. effectivement xam naa dafay nekk instant bi sama dernière question euh, fan la gars yi ci instant bi ci sa combat gars yi ñu ngi ciy doog wala déet. non comme li ma la wax rek xam nga gars yi moom. mais promoteur yi seet si nañ la quand même wala wala da ngay xam nga gis nga gis nga gis nga waaju baax. gis nga làmb ji. Euh, pour nga maanaam pour nga pour nga pour nga duggaat ci takkaat ngemb. dafa laaj lu bari quoi maanaam temps bi da ko dul maye bàyyi ma rek ma jël defar booy yi. Uh-huh. is xam la. Uh-huh. la nekk ci man ma jéem ko def ci booy yi bu baax. Uh-huh. amaguma ko nag waaye maa ngi maa ngi ci. kon tey tey rek wax ni ñi nga xamante ne dañoo bëgg trompeur safoo ko ndamoo ko bu yeboo ñu wax ko bàyyi bàyyi. non non buñ ko wax bàyyi bàyyi. ah lu su ma gisee su su ma gisee booy boo xam ne leer na ne moom mën na ma remplacer li ma maanaam li ma ñàkk mën na ma ko mën na ma ko dabu. Mm-hmm. ma def ci li ma am lépp. noo yow la en personne wala da nga ragal kurfañ ci làmb ji ba. non yow man aw ma dara lu may ragal. booy amuñu doole ñemewuñu lu metti booy ci làmb ji yàlla xam na ne ñu lu metti billaahi wallaahi ñemewu luñ metti lu mel ni mbir laa la wax. ah en tout cas man gis naa ci yoo xamante ni moom suuru leen yombul de. xam nga booy booy maanaam booy yi. taxawaayu xeex bu baax sax booy amuñu ko. seen entraîneur yi. Mhm. pour ñu defar booy yi sax problème la. da ngay yóbbu nit ko ba làmb ci non da koy xeeb sax. Mhm. combat bu mag dafa taxaw instant bi xeyna sax euh, exegul ñaari combat yo xamanteni combat yu mag la benn bi doomu way mi ngi ci mi ñu koy wax Lac de guerre numéro 2 wara jakarlo ak Boy ñaan numéro 2 tay ci tay en tant que expert ci wàllu lamb tay lan lan nga gisee boobu combat wa non Lac de euh ma ngi koy euh, nuyu sax diko ko sant quoi mm-hmm. Lac de guerre numéro 2 ak Boy ñaan budé lamb rek lamb rek ñom ñaar ah mm-hmm. gis nga Lac de Guiers euh, dama koy wax benn affaire même fan yële bañ daje géej maa ngi ko koy wax Lac de dafa am lu mu doon bëree ba ci am ay ndam dama ne ko loolu ngay tàmbaliwaat pour mbër daan la ci problème la. non Lac ger Guiers mosul rasu. Lac de Guiers Lac day dóor tànk. Lac ger day fàq day nooju. non gars yi dañuy saboote rek. gars yi dañuy saboote rek waaye yàlla xam na ne Lac de Guiers su ma la waxee dëgg rek mbëru géejaay yi waxuma la sax mbëru géejaay mbër yu nekk ci arène bi kenn dàq ko cee bëre am man la moom a gën a neex ci moom heure boo demee géej fekk ko fa dafa ñeme entraînement ba pare ma wax dafa mën a bëre xam nga ñu bëri dañ naan Lac de Guiers mënul bëre dafay rasu Lac de dafa mën a bëre yow Batiga la euh, Batiga bëri rek lay def ah Lac de dafa bëri Lac de Guiers bu metti ba Lac de daan ko ah mm-hmm. Lac boo suivre ay combat yu ndaw nga xam ne ne dafa mën a bëre ay ndaanaan rek la daan ci ay combat yu ndaw yoo xam ne bëri la leen daane boo mënul bëri doo rappel doo song. mais combat bi jël nga yaakaar combat parce que tamit bu nekk ci yoonam la jël ah. non non combat ah? boobu du combat risque. la dëgër bu amee la dëgg taxaw barki Seydina Mohamed moo ko man du combat risque booy ñaa moom booy ñaa booy ñaa na bàyyi windeelu yu muy windeelu rek bu taxawee bu taxawee mm. combat bi du yàgg. Boy Niang bu taxawee combat bi du yàgg loolu mooy li nga xamante ne moom la trompeur euh, bi ci des di combat bu Sénégal gépp àdduna yëpp sax di ko xaar. Mhm. Eumeu Sène Modou <laughs> jàngate boobu combat. non Eumeu Sène Modou moom combat boobu moom. Mhm. dinaa waaw moom à l'aise boo ci parce que faraloo kenn. waaw non combat boobu faralu ba ci kenn. <laughs> combat boobu moom. Ah. xam naa ne combat bu neex a neex lay doon. Mhm. Eumeu Sène bu ma bu ma sañoon combat boobu. bu mu ci sëx jël yenn poids yi moom moo ko yàquloon bële passé ba yaram bi chargé. mënu da ko takk ci gàllaaj ak yooyu ba loxo yi mënul jóg ah. takk ko de xanaa xamu ne am na système entraînement yoo xam ne boo ko entraîné boo demee làmb ja dañ ñaan dañ laa takk parce que mën nga mbëkkante mbëkkante waat mbëkkante mbëkkante waat sa yaram bi day jékki-jékki rek dafay chargé day mel ni yaa ngi salle day jékki-jékki rek chargé combat bu lu mu ci yëkkati weñ dafa bari dafa dem ba dafa dafa dem ba xam ne combat bi fu am na fu muy toll moom mu daanu sax moo koy gënal

am na système physique yoo xam ne moom musculation presque benn la waaye doo chargé boo sumee koo sax dañuy yaakaar ne kii dafay laal weñ booy xamuñ système entraînement entraînement lépp loo gis rek dafa am yoon làmb dafa am nuñ ñu koy préparé. lamb dafa am nuñ koy préparé defe naa ni kàddu yi am na solo yow mi nga xamante ni yaa toog di seetaan moo yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ki ñu mooy trompeur nekk fii ci Guédiawaye vraiment ñu bàyyi la rek nga nga tàggatoo te nga gërëm tamit ñi nga bëgg a waaw non maa ngi gërëm ñëpp di gërëm euh, susuma di gërëm waa géejawaay di gërëm ñun sulay siis euh, di gërëm euh, sama gaay yëpp waaw di gërëm tamit sama gaay mbëri il faut que ma gërëm leen ñoo xam ne maa nekkoon loolu ñoom fii yàgg naa ñoom fii bu baax a baax a baax a baax démb la di gërëm ñoon elton di gërëm ñoon guy gi di gërëm di gërëm ñoon njaasi numéro 2 ay Lac de Guiers di gërëm ay Ould ay ñoon Ndiassé numéro un ay ñoon Mbacke Ngom ñoon ibu Ndapa di gërëm di gërëm daal ñëpp di gërëm tamit sama waa ji il faut que ma gërëm ko Malick Gakko doomu Géejawaay waa Géejawaay na ngeen ko jàppale parce que ñun moom la ñu am lam def Géejawaay ba léegi nit mënu ko fi def Malick Gakko def na lu ne Géejawaay nañ leen ko jàppale di gërëm ñëpp képp ku nekk Géejawaay maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax yeen nak ma ngi leen di gëreum mention spéciale ma ngi leen di gëreum bu baax a baax di gëreum ñepp di gëreum tamit wa mbar ma ma ngi leen di gëreum di gëreum képp ku bokk grand parti école 16 ma ngi lay gëreum di gëreum wa mbar ma wa mbar ma ñepp ma ngi leen di gëreum ñoon Baara jow ma ngi leen di gëreum di gëreum sama grand di ko gëreum Pa Fay di gërëm ñoon Sëñ Matar ma ngi leen di gëreum di gëreum ñoon medul ñoon ndoura waaw di gërëm gaa yëpp ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay waaw di gërëm école de lutte liiru jaan képp ku bokk école de lutte liiru jaan maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di gërëm Baye Fall Baye Fall maa ngi koy gërëm bu baax a baax Mbaye Bitel maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm ñëpp su ma limee damay juum waaw maa ngi gërëm ñëpp digerem leen sant bu baax a baax a baax a baax di gërëm di gërëm waa grand parti képp ku nekk grand parti maa ngi lay gërëm di lay jox seen wàccuwaay. <laughs> trompeur yaa ngi politique instant bi nii voilà mbokk yi maintenant l' émission tire à sa fin di vraiment di leen ci jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne rek émission léppay leer gi Sénégal 4 TV nii lay demee ay bés nekk numéro bi moo affiché wu noonu ci bas écran bi voilà di ñaan yàlla defal ñu jàmm ak sutura ba beneen yoon ak beneen daanaan asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum maa leen di ñaanal yi seetaan Sénégal 4 TV yàlla na yàlla defal jàmm may ñu jàmm may ñu wér may ñu réewum naataange ci barki Seydina Mouhamed. dëgg la defe naa ne Sénégal gépp seetlu nañu yow yaay seetkatu seetkat yi.